ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar yal na yàlla doole ay leeram wàcc si waat ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram mu jaar nag ci Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu organisation màggalu Touba waaye moo yore it kaddu xalif général kullu murid yal ko yàlla jàppaleel boppam mu wàcc ci commission bi nga xam moo yor communication ak culture. te Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma jiite ko te di ko taxawee at yi yëpp ñu di ko ànd ak moom te muy njiitu liggéey bi waaye mu jaar si nag ci Serigne Modou Mbacké si moom Serigne Moustapha si moom Serigne Malick Bassine mu ànd ko ak Serigne Khady Diakhaté mi nga xamante ne bii moom euh, Serigne Cheikh Diakhaté tindoo di waaye bokk ci ñi saytu lépp lu jëm ci wàllu alquran ci lëkk bii di Touba waaye feggoo ci ak Serigne Fallou si ak seen mbokkum taalibe mii di wax ak yéen Fallou Galass si la ci ak Serigne Moustapha Mbaye ñu fas yéenee nag tàmbali liggéey bi tey jii eh, di eh, dimanche yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tubaab yemoo ak séntu bu njëkk ci weeru wolof ñu taxaw fii ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bi nekk ci jumaa ji fas yéenee tàmbali liggéey bi waajale ko nag incha allahu rabbi ci kanam tuuti danañ dem ci Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir mu ti déclaration bi nga xam ne baaxoo ne di ko def bu nu fa jógee danañ daal di jàll kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara fekk fa Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gépp bu subaa bu nu xëyee incha allahu rabbi di la 30 danañ daal di dem nag fële nga xam ne moo di kër Serigne Mandoumbe fekk fa seriñ Ibra Khoudia waaye ak ki yore kàddoom di Serigne Cheikh Bintou Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Mandoumbe gépp ñu amal fa jataay bu am solo bu nu fa jógee eh, di le premier danañ daal di dem kër Serigne Afia mi nga xam ne moog Serigne Touba ñoo bokk lépp. fekk fa Serigne Saliou mbake mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Afia waaye ki yore kàddoom di Serigne Moustapha Mbacke moom sëñ Abdoul Akram euh, le deux incha allahu rabbi danañ daal di jàll fi nga xam ne moo di Bambey séeréer danañ damit dëkk bi nga xam ne moo di gaat danañ def escale yoon wi waaye danañ fanaani incha allahu rabbi Ngunjaan Ngunjaan nag danañ fa amal jotaay yu am solo euh, yoo xamante ne bi ñu ngi séntu na kay def waxtaan wa moo di Serigne Gana Messere ak Serigne Khady Diakhaté bu ñu Euh, le 2 incha allah rabbi bët seddi la 3 danañ jaar daaray Serigne Mbacke Madina jaar kër Serigne Mokhtar moom sëñ Abdourahman moom sëñ Moudou Mamoun bu ñu fa jógee danañ añee si xombal fekk fa nag Serigne Ibra Ñaamar ak mboolem ñi nga xam ne ñoo di taalibe Serigne Touba yi dëkk xombal bu ñu fa jógee incha allahu rabbi ci la 3 ji danañ daal di dem ci la wunte bu ñu fa jógee danañ fanaani Touba Toul di dëkk euh, Serigne Abdoul Khafour moom seriñ Moudou Mamoun moom maam Cheikh Anta fekk fa ki nga xam ne mooy borom dëkk ba di sëriñ Mamour Mbacke moom sëriñ Abdoul Khafour bu ñu fa jógee la 3 incha allahu rabi bu ñu xëyee di la 4 danañ jaar dëkk bu ñuy wax kokki kër sëñ Mor Diouf Ndorong bu ñu fa jógee nag danañ ko tëjee ji fi nga xam ne moo di Réfane Touba Réfane nag di dëkk bu mag boo xam ne sëriñ tubaa dem na fa foofu it danañ ko ànd incha allahu rabi ak ñi nga xam ne ñoo ñu yabaloon doonoon suñuy kilifa di Cheikh Mahamadou Basir ak sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma foofee nag la ñuy tëje karawaan bi incha allahu rabbi ci ay conférence yu am solo ak ay thèmes yu wuute incha allahu rabbi kon bokk yi lii mooy programme bi nga xam ne fas nañ ko yéenee jël ren ji di ko tàmbali ci le 29 di ko jeexal ci le 4 di ñaan suñu borom subhanahu wa taala nañu may ñu def ko ci bismillahi rahmani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ko ànd nag ak mbooleem organe presse yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak ci biir rée mi moo xam muy internet wala télévision wala rajo wala journaux buy bind ñoom ñëpp danañ ko ànd yéen ak rajo yi kon ñi ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla ñuy may ñu defal ko ni ko Serigne Touba bëggee te làq ci ngërëmul Serigne Touba Serigne Touba it yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha te doole ak wéram yàggal fi mboolem njabootu Serigne Touba gépp yàggal fi Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne ci kàddoom ak ndigalam la ñuy doxee ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo seq comité d'organisation bu Magal Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu